ki julli di bokki taalibe yi noo ngi fii ci kanamu sunu jëwriñ ju tedd ji di sëriñ sa Mbacké di yëkkati kàddu yoo xam ni ci turam lañ koy yëkkatee mu jëm ci sëriñ Modou Mbacké si mii nga xam ni moo jiite karawaanu màggal bi ñëw fii Dendey tey te karawaan bi ñëw ci biir liggéeyub sëriñ Mouhamadul Bachiru Mbacke moom sëriñ Abdou Khader ak ci biir liggéeyub sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke sëriñ Abdoulaye Mbacke moom Cheikh Amadou Gaynde Fatma waaye mu mel ni li waral tànk yi lépp ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaqa ci ngeen koy dox ngeen ñëw fii ci Dendey ñu di leen. dalal jàmm di leen defal rek ahlan wa sahlan muy kàdduy dalal kàdduy dalal lañu leen di defal waxtaan wi la ngeen soxla ci Cheikh Ahmadou Ndoumbe Xabaan bu ñu demee ci jumaa ja sëriñ Ousmane Mbacke dana leen ko defal ni ngeen ko bëgge fii ngeen ñëw nag boroom ëtt bi mooy Cheikh Ibrahima Mbacke mooy Cheikh Ahmadou Ndoumbé ci kaw suuf ku bàyyi xel seen ñëw gii la ku ci am yëg-yëg la waaye xat-xat ak ñu ñeewantu ko ci jotaay bi moo tax mu jël lépp teg ko ci loxol jëwriñam di Serigne Cheikh Bintu Mbacke Serigne Cheikh bi ngeen ko waxee ni dañuy ñëw ba nëga amul benn yitte bu dul li fi seeni tànk ngeen am ko ni ngeen ko bëggee loolu moo waral barab bu nekk ak na muy doxe dëkk bii di Dendey sëriñ Ibrahima Mbacke da koo teg ci loxol sëriñ Koso Mbacke mii moo yor baat bi moo yore liggéeyu jumaa ji moo yore lépp moo waral comme Dendey ngeen di ñëw di xadara Cheikh Ahmadou Ndoumbé Xabaan mu wax sëriñ Koso na leen dalal ci kàddoom la ñuy wax ci turam la ñuy wax njabootu Cheikh Ahmadou Ndoumbé gépp nag teew nañu sëriñ Abbas Mbacke mi ngi nii mooy imaamu dëkk bi di doomu Cheikh Modou xaban sëriñ Abibu Mbacke mooy taawub sëriñ Ibrahima mii Cheikh Modou Ndumbe ci kaw suuf mi ngi nii mook ak sëriñ Ahmed ak mboolem ay rakkam ñoom ñëpp teew nañ sëriñ Amsatu Mbacke ngi nii ci sama wet ñoom ñëpp dañoo bàyyi lépp luñ jàppoon ngir ñëw jëmmal bés bi sëriñ Cheikh Bintu Mbacke sëriñ Ahmadou Mbacke mi ngi nii di rakkam di di taawam moo ki rakkam ñu ngi teew sëriñ Mamor Dendey xalifaam di sëriñ Sam Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér jëwriñam rakkam léppam sa si moom di sëriñ Modou Abdoulahi mi ngi nii teew jóge Touba ngir teewe jotaay bi njabootuk sëriñ Abibu Mbàkke ñu ngi ñii teew di sëriñ Cheikh Mbàkke ak sëriñ Jiili Mbàkke mbooleem kër yi kër Cheikh Mandumbe yëpp teew nañu waa kër sëriñ xabbaan moom sëriñ Abdou ni ma ko waxee sànq muy sëriñ Jili ak sëriñ Cheikh ñu ngi ñuy teew ak mboolem kër Cheikh ma ndumbe yépp kon daal ci tënk njabootu Cheikh gépp waaye njabootu Cheikh ma ndumbe gépp ñoo àndandoo bàyyi lépp luñ jàppoon ñëw teew fi ngir dalal leen ànd ak yéen bis bii nga xamante ni bii ñëw ngeen ci benn pàkk ci pàkki sëriñ Touba yi. li nga xam ne nag moom laa ci wax mooy ci kàddu sëriñ Koso ñu ngi leen dalal jàmm bu baax incha allahu waxtaan wi day doon waxtaan woo xam ne dafay ànd ak teg baaraam ndax kilifa mën ngaa wax ci moom lu baax lu yéeme waaye wax ju nekk bu amee firnde dana dimbale ñi koy déglu ngëm nga mën a yomb moo tax dama leen di tënkal rek. Cheikh Mandoumbe mii ngeen ñëw di gëstu ci mbiram ñun ñëpp xam na ni yoonu murid day bu fekkonte ni am mbaar la dañuy wax ni yeen ci jën yi ko téye mooy jën wii di ak dëggal ak bëgg sëriñ bi ak liggéeyal sëriñ bi ak àddiyaal sëriñ bi yeen ci jën yooyu moo téye moo téye yoonu murit yaari jën yi nag gisuñu ku ci nekk ci kanamu Cheikh Ahmadou Ndoumbe te loola fu wér lañ ko teg ay firnde yu wóor la jën woowii di haddiyal sëriñ Saalihu Mbàkke ci boppam de moo wax ni ku tedd ki di seexul xadim wax na ni ahmadu ndimba li ma jox kenn joxuma ko njabootuk sëriñ Saalihu ñu ngi fi ay jëwriñum ñu ngi fi ñu yàgg fegg ay kàddoom ñu ngi fi toog ñu ngi ñu ngi ci kaw suuf kon day dëppoog li ñu wax ni ab junni mooy ki ko njëkk a yëkkati jox ko Serigne Touba Cheikh Moussa Ka bind na ko moo njëkk a fab junni dërëm booleeg wurus mënu ngalam teg ci loxol ba magam mësa sàkkul àdduna kon addiyee moom day tegtale ni Cheikh Mandoumbe jafe na lool nga gis ku nekk ca kanamam ci nim doon doxe ci wàllu addiya liggéey bi fanweeri gëléem ak juróom daana bàyyi ko fii ñuy sëf dugub di ko yóbbul ko tedd ki ca sàq ma nekkoon daaru xuddoos ci diggante kër sëriñ abibu ak kër sëriñ soxna xadi gaynde soxna xadi faatma sàq moomee ne daana ko duy ba mu fees ak pepp njabootu sëriñ tubaa daan ko jëfandikoo di ko saafara woo loolu taxoon na mu dem ba sëriñ bi defoon ko mu nekk jëwriñu képp kuy tërbiyewu di wut ngërëmul yàlla ci toolu sëriñ tubaa ba bis mu woo ko mu ñëw mu bind leetar ni ko ahmadu def naa la jëwriñu képp kuy wut ngërëmul yàlla Cheikh Moussa Ka bind na ko Bamba ko jox mbindum loxoom ne ko sasal ma say moroom jëwri nga tool bi yaay boroom jaxaari baykat metti na kon addiye bi leer na liggéey bi leer na yaar yooyu nag munta am lulul dafa lalu ci kaw ak dëggu akuk bëgg kon loolu rek laa leen mën a junjal ci kii ngeen fekk ci ma Ahmadou Ndoumbé Xabane la ca des li ngeen soxla woo lépp nag bu ñu demee ci barab bu mag ba sëriñ Ousmane dana leen ko gën a leeral waaye daal noo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla bar jotaay bii bokk ci jotaay yi nga xam ne yi gën a barkeel la jotaay yi Serigne Touba gërëm te seen liggéey bi ñaq wu ci rot yàlla na leen ci Serigne Touba fay lu kawe seen jot